Dramé yàllaay kese yàllaay kese bi sëñ bi bu kaa ñu la koy dàqantalee yàllaay kese pourquoi ñu ma ko dàqantalee mooy ndefaatu man da man man gis nga Ousmane Sonko ni mel si juróomi at yi passé ba ma juddoo léegi daa mel mooy lu ma dugg ñu di dem fu ma jaay ñu ne du fi dundee billaay wallaahi lu ma lu ma xam ñu ne ma moomut ko waaw kër gu ma tabax ñu ne ma léegi mu daanu wala mu jaay ko. Mhm. wala tayal na ko. Mhm. ndax may fakkasalu dem rek. Mhm. dem ba yëg ni nit ñi seen pexe bu surtout man tey damay wala kaana. yàlla exigé na ma xol laa fi ne. ma ne xol xol xol xol ba nga xam ne neex ba neex mi fi yàlla kese fi ne. souffrir gu métti moo tax ma du ma yàlla kese. ndax du du bàyyi. du mag du rakk du kenn ku ma stélé ko ci àdduna. pour buuxuma jàll. yëg nga suma village maay ki fa njëkk génne ci góor. sa village fan la. Kër Mor Sotee gannaaw Lat Menge. maay ki fa njëkk génne ci góor. ñëw Ndakaaru di xoslu. est man mii. te maa fa njëkk génn. dem armée. yow def waaw ñaata temps. ñaari at. suma jëri légal mu jeex. ma libéré damaa dellu ci daara ja de ja ma jógoon. yooyu yëpp nag boo ci jaaree. da nga ne ah, ah, ah, yow sawaay mm-hmm. mel ni yow rek mm-hmm. ñaata doomu aadama ñoo lay xool bi ne buñ sañoon tey ji buñ sañoon tout de suite émission bi jeex kenn Fatma yow <laughs> yàlla sabi ko yàlla fi ne mm-hmm. yàllaay kese da koy jaamu doo wax du neex kenn doo yaakaar kenn man bëgguma jubóo kenn ànd ak kenn bëgguma kenn neex ma <laughs> waaw. wax na si yàlla kese bii. wax na dafa jaaxal dañu la yàlla. waaw yàlla kese la lu leen la. ñu ko ni may fàttali mbokk yi ñuy seetaan ne euh, sëñ Moustapha Dramé numéro téléphone am yi noonu. 77 290 50 50 77 290 ku ko soxla nag mën nga ko jël waxtaan ak moom hors antenne ndax euh, euh, sëñ bi li ma bëgg xam. Mm. mooy xam nañ ne. Euh, ba ngay feeñ ci bëtu sénégalais yi mm-hmm. boo fekk na réew mi xam nañ la ba pare mm-hmm. euh, ci mën a faj jàngoro doomu aadama yi li la si yàlla may macha allah euh, bari na ma nga xam ne sax am na ñoo xam ne dëgg-dëgg ci kër docteur ba ñu sonn nag yi ni mel mm-hmm. dañuy ñëw ci yow ñii sax dañuy boole ñaare yi ni mel donc yooyu dama bëgg hmm. euh, ak man mi sax ma xamaale ko ndax fii kenn wóorul mooy sëñ bi dëggantaan yow ci lan ak lan euh, nga mën a jàppale doomu aadama yi ci wàllum pàcc. waaw xam nga fi àdduna mm-hmm. fay gu fi ñak suñ mag ni mag ñun suñ mam yi mhm. da nañ dund juróom ñen fukki at bu téeméer at mhm. te dañu faatu ah, xam la waraloon mhm. benn ci lekkin nga ñaareel bi ci fajun bi xam nga tey nga dem hôpital feebar ñu jox la benn comprimé nga naan ko sa babi tane comprimé bi dafa kalma da ko da ko jox da jox kalma te plus ngay génn feebar dem hôpital comprimé yi ordonnance di bari sa jëmm ci bu yàggee mën na la jural yeneen xeetu jàngoro yu bokkut ak mhm. bu naturel bi waaw benn la bi sopp mooy la mag ñi daan fajoo mhm. gis nga feebar yi xew tey jii mhm. yëpp léegi la am hémorroïde ah léegi lay doog xew hémorroïde ballonnement gis nga bu njëkk seen jàng reenu seen nii xam nga ba ci hémorroïde fii ñi koy amee ci àll bi ci dëkku taax yi moo ëpp ñu ko amee ci àll bi mm, ah àll ba bëriwu fa déedéet Hmm. Ala ba bëriwut fa nga gis fi ni xam nga benn àll ba. Hmm. bu fekkee cere nga reere hmm. boo xëyee cere day faral sa biir bi da ngay digéré simplement bu dee hamburger nga leere wala pizza bu bët sété sept heures suba day fekk farine bi pat bi tasagut léegi moom commencé na sekk ci biir bi gonfale tëdd la ngay am problème mën nga dem toute la journée doo dem toilette bu tur ndox benn yoon ñaar pare nga ci loolu du jàmm baaxul. ah bon seetloo tey boo lekkoon dugub. laax mm. fanaanoo ko boo xëyee foo nga def toilette. waaw ba mu sax na boo lekkoon dibi wala sandis guddi. xam nga mm. baaxul. déedéet dibi mm-hmm. boo ko lekkoon dem douche te te gën a bon ci loolu nag. Mm. ndax déjà maa lekk ko tëdd baaxul. Ah, kon kon kon ñàkk dem douche bi. bu bari bi bu bari bi yëpp jàngoro la. doomu aadama vingt quatre heures. war ngaa dem toilette. donte bu doon benn yoon. donte bu doon benn yoon. même tambi tuur ndox bi tamit warut a nekk rek benn yoon. tuur ndox bi waroo ca dëkk. Mhm. boo ko defee ñett yoon ci bis bi ñeent yoon doy sëkk sa barke. léeg-léeg nga avancé ci ci ci leneen. yooyu mhm. yëpp nag man ñu am benn garab. Mhm. boo xam ne ci loolu dox. boo yoru émorite. neex na xat laa la wax nday faatu. nday sax ay ajatu neex na xat laa la wax. waaw boo ko yoree ba bu ñu la ko joxee boo ko jëfandikoo tàqali koog émorite. loolu moom fee la. te te nekkul garab bu compliqué ah. déedéet. am xam nga xam nga yor nañu ay cabinet nag ci ci wutee mm. ko fi Dakar am nañ ko Touba am nañ ko Kaolack ah, am nga ay cabinet fu nekk am na cabinet mm, ah, ñu jox la nga nga nga jëfandikoo ñun amuñ problème boobu waaw wàllu hémorroïde yooyu léegi bu léegi bu yeesoo hémorroïde ak banati am nañu wax asma mm-hmm. am ñu bëri ñëw asma mm-hmm. gis nga uh, mbët boof mbët boof mbët boof yëg nga ne amul jàngat bu mu dul faj mbët boof Hmm? amul jàngat bu mu faj. mais hmm? comme du ma ci liggéey nag. Hmm. du du du du ma wax nañ ko ma wax nañ ko composé. mais mbët boof dafa am benn garab. gu ñuy wax effelgan. waaw dama mos a benn chinois. ñu mu ne mu ne garab boobu. mbët boof lañ ko liggéeyee effelgan. effelgan bii effelgan bii. nga xam ne man mooy mooy sama garab. mbëf mbët boof. lañ ko doomu daanu. te imagine bu seeram tàng wala xale bi nga jox ko mu naan ko léegi mu sedd. léegi imaginer nag nga am beneen garab boo ko boolee ñoom ñaar composé leen ci bidon naan ko. mu sa bu dee asma nga yor. waaw nga am problème mu nooy. ñoom mm. mm-hmm. naka da nga taxali ko moom. ak ah, te loolu yow ci marabu bu nga ko liggéey ak leneen. ak leneen ak leneen laa ko liggéey. loolu léegi loolu nit ki da koy naan. nikki da koy naan. Mm. duñ ci def ndox ñun de. def ko ci bidon jox la. Mm-hmm. boo demee yaara ba set def ci ndox nga naan. mais xam nga ne sëñ yu ñu na garab yooyu ñu jox nit ñuy naan ah. ñu bëri dama dégg ñu naan problème dosage ak tam hmm. mooy bu dee bouteille bi daf ko war a naan ay bës yu bari fan yu bari ak yooyu xam nga nit nit ki foo nga xam ko hmm. boo yoree jabet hmm. wala nga yor tension ah, duwun ne garab boo jot naan dëgg la moo tax ba fa ñëw dañ naan ndax yoroo jabet ndax yoroo tension nga ne déedéet waaw nga doog ko yoroo ñu ne B ngeen a déedéet mhm. ñu ne ah waaw kon de yow mën nga woo jëfandikoo nii ak nangam mais bu fekkee ne ku yor yooyu la am na traitement boo xam ne wala ndebedaay la ndebedaay mm. xam nga ndebedaay même ku yor jabet mën na mm-hmm. koy jabet ci boppam nag yow noo koy fajee la mm-hmm. da ngay dem nga defi test mm-hmm. pour nga xam pour ñu boo yegg see traitement bi ñu ko jox ñetti fan la. Mm-hmm. kuddu suba la doon kuddu ngoon. Mm-hmm. kuddu suba kuddu ngoon da nga koy jaxasee li nga lekk meew meew boo xam ne du am suukar. Mm-hmm. nga naan ko. plus loolu nag bala nga koy laal da dem nga test nga xool ñetti fan ngay naan nax boppam te lu mag dundee ba dee. bu dekkee boo defee ñetti fan nga dem xool sa suukar station sa suukar bi. bu wàññee xam ne loolu nga bëgg. bu ëppee.

mais nag damay dégg tam souvent euh, ñi nga xam ne ay wàllu sëy euh, ay diggante góor ak jigéen mhm. ay yenn góor ñi bu ñu amee yenn jafe-jafe ci seen wàllu néegu sëy euh, jigéen ñi tamit léeg-léeg ñu am xeet googu xaw ma nag ndax yooyu dañ ci yëngu waaw xam nga ñooñu maa ngi koy wax démb dama ci am benn boo xam ne maa ngi ko tuddee nay dëgër hmm. nay dëgër dafa góor dafa war a dëgër ba yàgg war na leen jigéen ñi lekk ak naan mhm. taxul ñu jógee seen kër bàyyi am na fa mhm. te jigéen ñi léegi ñëpp yow seen kër bopp kon leneen leneen lañ soxla ci góor loolu nag seen yaakaar waru tas dafa war a nekk mhm. moo tax ma ne leen góor boo amee ndoxam siti faji ko day wàññi diw kattan mm, mais boo amee coli am naa am naa am naa garab yooyu am naa am na yooyu prochaine fois su may ñëw fii bu nekk dama indaale exemple Go, ba am ndoxam ci di mm-hmm. wala wala wala coli mm-hmm. da nga am problème de katan kemo ci dara mm-hmm. ba yore prostate tamit da nga am problème néew katan prostate mom da nga am néew katan mais ba la est da nga fajj prostate prostate am nañ ben traitement bu ci bax bo xani mom ñent fan nga ko ko nga xol bu sawmi arrêté wu nga bax parce prostate prostate mo da nga saw rek tout temps taxaw dara dal da nga am jafe-jafe tipi. automatiquement da nga am problème mu ah moom prostate. waaw ah, ñoom ñaari benn aliment lañ. bokk sëdit sëdit bu leen bu leen jàpp. Hmm. te hmm. boobu tam am ah, yàlla mën na eh, loolu moom ci ñu hmm. ci. am ndam moo tax ma ne sax am na benn vidéo boo ko xoolaan. da nga gis nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla. waaw ah, ci lu ne. léegi ak euh, euh, jigéen ñi nag moom jigéen boo xam ne nii nag ba bëgg am doom. dafa am benn saar ci alquran ñu ko wala aqsimu bi yawmil qiyaamati. saar boobu dama yaay wax ne ku ko bind ñetti yoon. ñetti yoon da koy bind mas ko sadd ko maanaam kamatara maanaam comme ni ñoo ci alquran beneen bi nga bind ko doo ko sad nga nga bind ko tomb ko sadd ko te doo ko mas beneen nga bind ko tu am tu am tomb kata nguur nguur nguur ngur nguur bii di naaw nii waaw waaw euh, nguur bi nga mooy waaw nguur picc boobu tam xam day ñëw tabax day ñëw sa tabax sa néeg waaw waaw waaw waaw def ko saaru ban mm-hmm. boobu fi mu ko jëlee doomu aadama yi ñu bari xamuñu ko mm-hmm. ban boobu noonu xam nga nguur du sëy ah du sëy déedéet nguur du sëy moo tax doo gis mu ko mu couplé. day jël sax transfert ko def ko doom kenn du yàlla. sax lay jël kanam ko doomu aadama ñàkk xam-xam te tëlot. Ah. sax lay jël sax lay jël sax yóbbu ci biir néegam transfert ko doom. gis nga suufam soosu. Mm. boo ko booleeg saar bële. Mm. jigéen bu jigéen bu mun am doom bëggoon naa ne. Mm. moom bu fekkee feebaru laa wax de. Mm-hmm. billaahi wal kitaabi am doom. mais mais mais est-ce que kii ba yomb naa am. Euh, nguur bi. waaw waaw amu ñun man xam nga war naa war sànq ñun ñu di ko Saalum moom. Mm. ñun loolu dañ ci ut saaku teg. Mm. parce que dañu pare lépp pour loolu. Mm-hmm. doo ko manqué fu nit ñi dem ko euh, yi laa mm-hmm. ba ci cabine damay dégg xam nga tam réew mi. waaw ah. ñuy jeexalee. Uh-huh. xam nga aussi réew mi. Euh, dafa bëri ñoo xam ne. Uh-huh. euh, euh